asalaamaaleykum euh, suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñu tous les jours ci seen émission Sen Cas comme ngeen ko xamee nag Sen Cas day daal di rek dellusiwaat ànd ak yéen ci yeneen cas ci yeneen tematique mais laataa ñu dem ci li nga xamante. que moom mooy cas thème du bi damay nuyu ñi xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir plateau bi ku ci mel ne Amatulaay tey nag beneen daanaan boo xamante ne nii ci beneen passé lay ko doon xaar nag di ngeen ne ah waxoon naa leen ko kooku mooy euh, l'homme mais laataa ma koy dalal ki nga xamante ni moom mooy Ramatulaay Ramatulaay maa ngi lay euh, ngi lay fay Mariama di nuyu suñu mbokk internautes yi également di nuyu suñu invité bi tey <laughs> ndaanaan si biir ndaanaan yi. <laughs> voilà mais noonu. <laughs> kooku nag nekkoon rek ki nga xamante ne moom mooy Ramatoulaye yi naa leen kooku à chaque fois su ma koy dalal man ci suñu ay biir plateau dama daal di bàkk daal di koy dalal ndaanaan ci biir ndaanaan journaliste bu mag boobu nga xamante ni. tey yàlla dootu ko présenté ñu koy wax Pape Ousmane Cissé tey nag mu nekk une première ñu koy gis ci plateau 7K Pape Ousmane ñu ngi dalal. tey da ngeen maa kidnappé. <laughs> maa ngi lay delloo dalal bi bu baax di wax ni namoon naa leen trop ah, euh, bokkee ngeen plateau bi tey nag xaw ma kaa bi day leer dama koy wax internet ñuy bàyyi xel ne dañ ma kidnappé fële ne ma tey moom yow lañ jagleel kaa bi te waxuñu ma nag lañu la ñuy waxtaanee man nee naa ne nag lu ma xam laay wax lu ma xamul xaw ma ko. na kaa bi doon man xam nga kaa yi naa doon man. imagine ñu kaa la tey mun naa doon Mansour comme mun naa doon <laughs> yooyu yëpp jar naa <laughs> nag lan lay doon waaw. Mhm. maa ngi déglu. moom ragalul loolu comme ni ñu ko waxee sànq rek moom moom jàmbaar la te dugg lu ne rek am na fitu rek daal di génn kàddu na tey leen koy lu dul li nga xamante ni euh, c'est d'actualité ñu koy wax tey nag ñu fas yéene waxtaanee xale yi. ado yi ak ñëpp ñoo xamante ne rek suñu ay moroom lañu nekk ay ndaw euh, te exposé wu ci yenn yi nga xamante ne ñu ngi koy daal di gis gis nañ ko ñu ngi waajal commencé nañ ci yenn école yi jël nañ li nga xamante ne moom mooy fête jël ay vacances de Noël xale yi nag ñu daal di leen rek fas yéene sàmm daal di leen di xool ci li nga xamante ne moom mooy côté penrant yi xam naa ne ku ci mel ni Pape Ousmane dina ci gën a mën a wax. Mm. en tant que parent <laughs> yaakaar naa ne rek il y va de di veiller ci li nga xamante ne moom mooy doom yi xale yi. ak ñëpp ñoo xamante ne rek ñoom ñooy magu ëllëg euh, suba comme on dañu nekk nag ci période de vacances Ramatoulaye mhm. te man ma def constat boo xamante ne ba tey ci suba rek euh, moom moom moo ci mujj li may déplorer le plus souvent mooy que da ngay dugg clando da ci ak benn xale boo xamante ne cinq ans la am euh, wala sept ans maximum ànd ak benn rakam bu am quatre ans mhm. di ko yóbbu école mu dem rahmatullahi war a jógee ci distance yoo xamante ne ni lu ne rek mën na ci xew hmm. euh, bokk naa ci ay xale plusieurs fois ba la dernière fois sama koy ñaawlu ak li nga xamante moom mooy chauffeur bi xale bi ay huit ans lay war a am ànd ak benn rakam boo xamante ni maximum cinq ans lay am hmm. mu war ko yóbbu mu jàngi déposer ko ba pare moom mu doog a dem jàngi école hmm. imagine toi loolu noonu xale boobu exposé wu ci ay biiri mag foo xamante ne ni mënu fa xamu fa euh, mu war a wàcc fenn wàcc te Mm-hmm. xale bi ndeysaan vulnérable. waaw ah. se défendre ne obligé wàcc lay def may wax ak clando bi mu ne ma xamal lu ma ci tegal <laughs> ne ma kii dama ko may sax paas. ndax mm. ñaar lañ te su ma neexoon dama leen di fayeeku ñaar kon na day wàcc sama oto clash na portam wàcc ay enfants yoo xam ne dañuy exposé wu euh, xale yoo xam ne dañuy jéggi dali jàngi mm-hmm. xale yoo xam ne dañuy jóge dem jàngi ji mm-hmm. ñu nekk ci ay fête Noël xale dañuy bëgg génn dem fête ji mm. génn dem ànd seen xale yi seen morom yi taal ay pétard ak yeneen yu bëri yoo xamante ne ni ramatulaay ñu ngi ko ciy gis te xale yooyu exposé tey ji mu war a woowaat rek li nga xamante ne mooy parents yi dellu si waat ci sensibilisation bi parce que mm. ñu ko fàtte période électorale loolu moo nekkoon mi ngi noonu Mariama am na solo c'est c'est bien sax le fait que ñu am fii Pa Ousmane mhm. en tant que parent aussi xam naa moom dina ci gën a yaatal mi ngi noonu ñoo ngi jël nañu feet yi loolu nga xamante ne mooy vacances yi te xale yi mérité nañ loolu nga xamante ne mooy euh, attention mhm. nañ bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax parce que dañuy soxlaa génn leen la loo xamante ne du ñàkk parce que dañoo jógee ci ci école divertissement dafa baax ci xale mais ak mu koy defee parce que parent yi ça euh, si si si seen responsabilité la bokk xale bi tey buy génn mu jàpp loxoom ne ko tey kaay ma yóbbu la Magic Land kaay ma yóbbu la fii ak fii pour nga divertiru mais bay xale bi muy génn noonu kese c'est pas sûr parce que déjà tey def nañ benn euh, récap mooy viole yooyu nga xamante ne am na ci année 2021 bi gis nañ plus de 53 euh, mineurs ont été violés ci 2021 bi donc loolu rek war naa mën a pousser parent yi. ñu gën a bàyyi xel loolu nga xamante ne mooy xale yi li nga wax ni tout à l'heure aussi euh, am na solo Mariama parce que parfois sax ngay dox ci tali bi am benn xale bu la jege nee la tata jàppale ma ma jéggi. Euh, voilà c'est c'est touchant munoo bàyyi xale boobu di jéggi moom kese te obligé jàppale ko loo yàkkamte yàkkamte parfois tu te poses la question savoir kii ana ay parents ana ay parents naka lañ mën a bàyyee xale bu toll nii génn kër ga moom kese donc loolu négligence la te parents yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax xam naa dinañ ci gën a yaatal ak Pape Ousmane tay dama bàyyi dara mu xam naa ni macha allah parent la boo xamante ne nii ah. néewul mm. 100 pour cent it euh, macha allah kenn naataabelu li nga xamante ne mooy attention ak responsabilité. bi nga xamante ne mu koy am ci biir ay njabootam mais moom ak yeneen moromam tey xëy na ñeneen ñoo tax ñu taxaw fi di wax euh, bu bu am solo la parce que souvent duñuy jël le temps nécessaire pour ñu waxtaanee. Mm-hmm. Euh, xale yi xam nga yaa ngi wax parent mais dafa xam lu koy jiitu d'abord mooy ñi nga xam te dañu bëgg sëy. il mm-hmm. faut am projet. te responsabilité bi nekk ci am doom garaaw na garaaw boo xamante ni. ñun duñ ci bàyyee xel souvent li ñuy wax rek mooy mariage am na rek ñu dem ñuy snap. wane ni may nañu temps xale bu jigéen bi defal nañ ko lii yooyu yëpp peut-être am na solo. parce que sag la mais je veux dire en dehors de loolu dafa am lu leen di xaar en terme de responsabilité. maa ngi fàttaliku daaw bi mu gën a takkarnaase ci mbiru xale yi ñuy violer ñuy jàpp nii wala ñoo xam ne dañ dem benn moment a da nga ce que. nit lañu benn jour ma wax ko ñu ne ma li nga wax dafa ëpp ma ne est-ce que duñu taxaw dakkal njur bi pour xool parce que euh, xale yi ñuy mettre au monde bàyyi leen ak seeni sago te li war ci ñoom ñu def ko buñ ko deful bomb a bomb la ci société ñooñu ngay gis tey ñu ci ëpp ñooy def yenn yi ñooy dem ba doon sax benn ennemi seen réew parce bu juddoo nga bàyyi ko moom mala yi rek ñoo am cest à agissement wu mala lay am réflexion yooyu lay am mhm. doo tuutul nit mhm. leneen la te bu demee leneen ngaañ di mooy ëpp njëriñ li mhm. parce que li war ci moom ñi ko meññ defuñu ko ci moo tax ma jàpp ni léegi mariage fi ñu ko yóbbu ak ni ñu koy xalaatee ak projet de société bi mu war a doon parce que tabax la gis nga tey dérive ñuy dund yëpp ñu koy wax ñëpp question de comportement crise yi ñuy gis yeeg jafe-jafe yi ñu naan euh, manque d'éducation yëpp ñaar ñii ñoo ci responsable laa nga wax la société ak l'état ak lu mu ci doon mhm. mooy ñaar ñi décider na dañu bëgg a sëy mhm. waroon mën a jël le temps comme ni ñu jël xam nga boo nee damay marié wu tey par exemple su ma ne woon exemple damay marié wu ak Ramatoula mhm. mais avant datu mariage bi li war yëpp en terme de cérémonie dañ koy matal mm. damay xalaat ne dinaa ko may diw temps su ma ko mayee seen waa kër yëpp bàjjen yeeg yaay yeeg nangam ñëpp ñëpp dañuy dañuy maye euh, Ramatulaay mm-hmm. gis nga pen boobu noonu ñuy def autour de de de de de de cérémonial boobu noonu pour mariage bi mm-hmm. gis nga lu ko ëpp lañ war a tamit ñoom ñaar taxaw ni mm-hmm. léegi feeg un an deux ans bu ñu marié war nañu am doom projet pour suñ doom lan la ñu koy préparer surtout ba ci sax ba ci sax gis nga le bi ngeen di am war ngeen ci mën a xalaat seen doom bi juddoogul mhm. ci waajal ko mhm. tey yéen a fi dàq def seen kii yooyu tontini tontine lu ne yaa ngi ko gis tontine mhm. teggi nangam tontine mais mosoo gis mosuma dégg tontine waajal sama doom. jamais. ci ban école laa koy dugal. naka laay suivre li nga xamante ni mooy éducation parce que en dehors de l' day yegg si kër gi. ban encadrement lay am lan laa bëgg ma doon fii ak dix ans fii quinze ans fii vingt ans di xool sax gis nga gis nga sa doom mën nga détecter sax bi muy nekk xale sax ban métier la mën a épouser ailleurs. Mm. ci ay comportement ci façon de jeu ci mm. façon de sobam curiosité ak ni muy waxee ni muy kii yooyu yëpp. pour dire quoi pour diir que ni foofu la d' abord. Mm. gis nga bàyyi xel bi nga bàyyi xel sa doom moo lay may li ngay wax nii du am. mooy du la rëcc. ba ngay xam est que génn na moom dong wala génnul bu ñibbisee même bu génn moom dong bu ñibbisee sax war nga ko mën a xool. Mm. observé ko. Mm. parce que pour xool est-ce que ni mu fi génnee noonu la ñibbisee mais gis nga liggéey boobu noonu ci yaay lañ ko gën a bàyyee xel mm-hmm. mais tey phénomène du ñu dund may Pape Ousmane day génn Ramatoulaye génn. génn Pape Ousmane waxee ñu ne mm-hmm. non. émancipation non parité non. lii jigéen mais nga ne si Ramatoulaye lañ ko génn xaaree parce que aussi oui parce que parce que non je je ne dédouane pas le père mais je veux dire suñu nee éducation c'est d'abord la maman déggoo ñu ne la. mais lu tax soo éduqué da ngay dégg ñu ne la soo éduqué. yaay éduqué nga àdduna. Mhm. lu tax ñu koy wax naan yaay éducation dafa am lu tax. Mhm. parce que d'abord yaay ji mooy nàmpal. Mhm. d'abord yaay ji mooy ëmb. te gis nga diggante neuf mois yooyu noonu li ci xew yépp kenn mënu la ko wax moo tax ñuy bàyyiloo xel jigéen ñi ci taxawaayam ci période boobu ba ni mu ci génnee deux ans yi mu koy nàmpal bu dee ni sax deux ans yi am ba léegi <laughs> ci diggante boobu yépp mm-hmm. encadrement bi ci war yaay lañ koy xaare waaye nag bàyyi ñu ngi koy xaare ci moom mm-hmm. njëkk mooy jabar ji muy tànn mu ànd ak moom ci idéal boobu noonu gis nga tuute est yonent bi sallallahu alayhi bu doon wax ni bu ngeen di tànn ñett yi la waaye maa ngi leen di maa ngi leen di tànn loo bi ci mujj mu wax ni mën nañu tànn jigéen ci diineem mën nañ ko tànn ci rafetaayam wala ci fi mu bokk mais mu ne bu ngeen tànn maa ngi tànn loo diine lu tax mu wax ko xam nga souvent ñun dañu am benn esprit réducteur ci diine bu ñu wax rek waaw jaamu yàlla nangam noo jikko ji la ñu wax gis nga boo doon def juróomi waxtu yi te boo ci paree yaa gën a yées ñëpp ci penc mi jullee go waaw da dem def rek gymnastique gis nga bu at at mu jot nga dem aj màkka wala nga def sax aj bu ndaw beeg yooyu yëpp yóbbul mille des de personnes aji màkk boo ci paree bu dee yaa gën a yées ñëpp ci penc mi ajagoo aj lawoo léegi nga jël ponk yëpp noonu maanaam li ma bëgg wax mooy ne ponk yi jeexital bi mu bàyyi ci yow mooy dafay def ci yow nit boo xam te dañuy mucc ci moom ci làmmiñam ak ci loxoom mooy jëfam gis nga doomu aadama feeg yeggul ci niveau boobu rek mooy ni lépp loo mën a def ci jaamu yàlla rek perte la parce que yàlla xoolu ko parce que li muy xaar ci mooy jeexital bi muy def sa xol pour dire quoi mooy ni góor gi bu amee mat googu noonu ci wàll wi mooy buy tànn même bu tànnee koo xam ne sax loolu matul sax pour que bu ko defee ci moom. Mm. en retour yaay ji def ko ci doom ji. léegi nag loolu moo tax ba léegi société bi dafay gagné. Mm-hmm. mooy ne boo formé ko ci idéal bi may wax ni mm. mooy ne bu génnee day jëriñ société bi te da ciy jëriñu mais tey bu fekkee loolu yëpp dañ ko bàyyi. Mm. mooy expliquer li ngay gis nii. ay parents yoo xam dañu démissionné doom ja nag yarook sagoom dem ba benn moment xam bomb lay doon. fu ne lay jaar. xëy sax yàqal la il est perdu. il est mhm. loo mënti tudd mooy ñi ngay wax ñëpp qualificatif yi da ngay xool nga ni waa kii ana way juróom ana nangam. fekk na xool dañ ko bàyyeeg boppam mu dund loolu dem ba kii pour dire quoi fondamentalement war nañ mën a xoolaat mariage yi bëri na ci réew mi de am solo. Mhm. mais lan moo tax ñuy marié wu. doom yi am mhm. fan la ñu bëgg a egg ak ñoom. surtout pour man c' est fondamental cette question ñu koy bàyyi xel man il m' est arrivé fois dama koy joxe exemple sam pap ma jur. gis nga bu xam nu muy def. ñaari la ci ñaari la njëkk dem xool mhm. cuisine ak gis nga bu ko fekkee mu désordonné wala mu mel na mhm. keroog nga koy dégg moo sama yaay. lu dul loolu doo leen dégg. Mhm. c'est-à-dire après bu mu màggee laa comprendre lu tax. ba pare chaque fois du ñuy wax ni ñett yi mooy priorité moom. éducation. santé ak li ñuy dundee. cest à moom toute sa durant lijjantiwul ay la léegi sa ay yooyu noonu gaa yi def. Mm-hmm. dafa ne man ma famille ci ñett laay taxaw ñëw mooy tax ñun école yi gën a baax. Mm-hmm. rey na ci boppam. Mm-hmm. gis nga tey suñu kër boo fa toogee nga ne <coughs> rek non mu ne la lan la lu xew nangam dañ dem ba sax ñu dañ koy tooy na ko yow médecin nga waroon doon. parce que suñu kër xeetu garab boo xam mu ngi fa. sama grande sœur sax moo ko ci doon. moom boo demoon tey këram sama grande sœur. non xeetu garab boo loola daal di nga ko fekk. <laughs> pour dire que ni. loolu tey man regretté wu ko xam naa lu tax mu ko doon def. Mm. et puis maa ngi jéem ci lu mu man comme li ma wax nii. Mm-hmm. di ko essayer ci gi mais est vrai que ni doo am li nga bëgg. mais idéal la pour man idéal bu nekkee sa bopp nga ciy tendre rek xëy na un jour. moo yàlla récompensé la sol leen masque sol leen masque c' est man eh, cest à ma sonal ma jàppee ne lii baax na rek. oui man chaque jour li may def moom laa def du ma ko changer parce que constance moo lay may dara. mujj nekk ci yow. Mm. mais tey ñun jeunesse bi dañoo yàqamti bëgg am léegi bëgg xam léegi bëgg nekk léegi bëgg tekki léegi alors que constance ci effort ci lu baax. moo leen mën a may yenn élévation yi. constante ci fexe wax ak sa soxna na ko lii baaxul mm. taxawaay bii lay xaar ci xale yi encadrement boobu noonu constance boobu moo amul. Mm-hmm. da ngay bëgg marié léegi lépp di neex léegi. nga am doom ngeen commencé léegi yee yow jaara fële nangam moo tax gis nga. Mm-hmm. ni may woowee papa yi. Mm-hmm. noonu laay woowee yaay ci responsabilité boobu noonu. ñu bañ rek jàpp nii Ramatoulaye mii dafa war a dem liggéey rek bàyyi kër ga man dama ne. Mhm. chaque fois dama ko wax li la jaral ngi génn pour ñaan la. li fekke da génn ñëw dem di rey sa bopp pour indi ko ñëw fekk njaboot ja yàqu. ñooy mm. def li am. Mm. amul su ma ko waxee nag ñu mel ni yow te ñu émancipé hey tey ma dee <laughs> plateau bu ne wax naa ko mhm. waaye lu ne laa ci dégg lu ne dégg naa ko jigéen yow bëggooñ yow naa nga mën naa fekk na ma dama wax ne ren rek. Mhm. nañu xool doomi tey mhm. ak doomi démb. Mm. li ñu metti ci tey lan moo ñu koy indil. léegi yow je comprends bien pas li ngay wax c'est comme si la femme elle doit rester à la maison euh, surveiller les enfants. moi je xam nga mm. yow yéen da ngeen ko da ngeen ci lii dafay toog naa nga ma dama ne. Mm. le rôle ki est dévolu à la femme. na ko mate mooy yar. Mm-hmm. te ku yar. Mm-hmm. nga am patience. Mm-hmm. di xool. di bàyyi xel di liñ bët di lijjanti di orienté. man maay fàttaliku sama yaay da daan toog ak ñun ak samay frère ci biir kër gi. Mm. di ñu léebal. man gis nga euh, pour pour vous dire. Mm-hmm. man li ma comprendre yëpp ci bi may jàng maa ko comprendre ci leçon de morale yi sama yaay doon jox. Mm-hmm. te chaque fois lu ko def mooy bu ñu reeree ba pare. Mm-hmm. xam nga léegi <laughs> booy bu ñuy reer ñu ngi ñu ngi seen téléphone. nekk ah, di di <laughs> exactement waaw waaw waaw waaw ñun bu ñu bu paree dañ naan toog nii léebal. man kankurang ci moom laa njëkk a comprendre lan la. Mhm. ak euh, suñu siidee arama yeeg ak ni ñuy waxee lëgleel yeev ak yooyu. Mhm. man moom moom doon décoté bu jeexee tamit mu wax la leçon de morale bu nekk derrière. da daan may fulla ak fayda. Mhm. respect jëm ci mag. naka nga mën a jëriñee sa société. lu tax doo fen doo sàcc doo wuruj doo def yooyu noonu lan la lay indil man sama yaay laa doon déggee ne xanaa xamoon ni boo jëlee boo lekkee alal bu lewul man bu ma la ñaanalee du du du du du nangu parce que ci alal ju leewul jooju ngay jël di ma ko jox ma koy dundee. mooy waral man su ma suma su ma la ñaanalee du jàpp. sama yaay ma ko wax ma jàpp nii man képp ku ma ger wala nga jox ma alal bu leew rek yow sama noon nga. Mm-hmm. dès le bas âge la comprendre loolu ma koy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est-à-dire pour que ni tey rôle bu am solo bu jigéen ñi am war ko jouer ci société. parce que daf ñuy dimbali ñun en tant que góor dimbali mhm. société bi. ci mhm. produire ay doom yu baax yoo xam dañuy jëriñ sa réew. Euh, euh. fii ak yegguñu ci carcan bu pour man oui c'est c'est facile de tirer am na responsable bi état bi am. Mm. mais d'abord cette responsabilité elle est ci ñun la avant mu yegg ci ñeneen mooy ñun su ma ko waxee mooy les parents mooy papa ji mooy yaay ji. te nee naa du ma dédouané góor je pense que responsabilité bi aussi euh, ci deux parties la cinquante cinquante parce que l' enfant aujourd'hui tey xool nañ ba xam ne xale bi euh, moment deux part deux deux deux kii lié la am yu muy passé plus tard euh, temps bu bëri mm. mooy école ak à la maison li ngay wax ni aussi revenir na ci responsabilité loolu nga xamante ne mooy professeurs yi ñu ci bàyyi xel parce que xale yi aussi ils passent beaucoup de temps à l'école juste dama lay rejoindre ci benn point xam naa foofu la ñuy jeexale mm-hmm. ci responsabilité boobu nga wax mais y a ce appelle le monde extérieur mm. euh, mu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbedd bi nekkuñu ci école bi mais ñu ngi ci mbedd bi Euh, mhm. sànq nii maa ngi ci échanger ak Mansour ah, comme seen cas kër gi ñëpp ci am wàll. bu mhm. ma expliqué benn fee boo xamante ne ni euh, moom da ko fekkee. Mhm. muy jéggi tali euh, muy jéggindoo ak benn jeune fille boo xam ne âge am mu ngi toll ci ay 15 ans 16 ans. fi muy muy jéggindoo ñoom ñaar am na benn oto buy romb benn paa moom moo ci nekk di ko klaxonné pour yóbbaale ko. mu nekk yoo xamante ne ni mi ngi ci mi ngi ci réew mi embouteillage bi fu mu toll. xale yi papa ñu nekk seen xaas seen xaalisu paas. Mm. comme tey si suba nii rek bi may ñëw benn xale di ma di ma intercepté si yoon bi dama tata yoroo foofu nga may ma paas ma ne ko sa paas ñaata la mu ne ma 150 maa ngi yoroon 200 sama loxo ma jox ko 200 yi. Mm-hmm. xale boobu dem góor la mais bu nekkoon jigéen toll foofu noonu yorul paas war a dem yegg école am daje kenn mu yóbbaale ko. ci yóbbaale boobu la gis kidnapping yi. Mm. ci yóbbaale yooyu la ñuy gis viol yi. ci yóbbaale yooyu la ñuy porté dis porté disparu. mais xale boobu fan la war a dem moom balay balay laaj paas te ñaata at ci lay toll est-ce que am na 10 ans 15 ans. ay 15 ans ay 15 ans la âge di war a toll mu ngi sol tenue uniforme EPS euh, e la sol blouson boo xamante ne certainement uniforme école bi la euh, mu ngi taxaw interpellé ci biir rond-point bi te loolu léegi loolu lañ koy gis sax na ah. bëri na ay xale yoo xam ne nangam et tout te xoolal loolu c'est comme si du dara. du dara si ñoom ah. du dara alors que xale fi mu toll noonu mu mhm. tàmm lii. Mhm. tàllal loxo tàllal loxo mais c'est extrêmement dangereux. parce que ku am ans aussi yaayam du téye loxoom di ko yóbbu école. c'est extrêmement dangereux 15 ans 15 ans. mais je veux fi mu toll noonu ci âge boobu noonu mu tàllal noonu loxo. lim ko mën a jural ëllëg kenn xamul nu mu toll. kenn alors que alors que ñun xalaatoo ko woon. Mm-hmm. moo tax ma ne la gis nga cette question bi ma teg ci table bi elle est fondamentale. Mm. mooy doom yi ñuy jur pour lan la finalement. Euh, man je pense que finalement. Mm-hmm. les les gens se marient sans xam objectif au mariage. parce que aujourd'hui quand on parle de mariage parce que quand on parle de mariage parce que. les jeunes d'habitude je pense que consommer bi moo leen ci gën a yóbbaale ak euh, vie bi ça va t'es ma femme je suis euh, ton mari on est à la maison ñoo ngi béggee di fo mais il ne pense pas aux conséquences maanaam dañoo war a am doom dañoo war a fonder benn avenir kooku dafa war a dugg école dafa war a lekk dafa war a dem fii tu vois y a de ces yoo xam ne ñu ngi koy négliger surtout euh, même après ah, de de de de de l' événement festif xamante ni mi ngi am li muy dundee fii mois. Mm. nit ko a ñëw. et puis yéen jigéen ñi est ce que yéen a ci valeur yooyu. cest à man tamit loolu moom ma yéem ko cest à man mm. souvent j'ai comme l' impression que ni jigéen ñi yeewuñ ci réew mi ñuy tuddee euh, réew mi nga xamante ni dañ fi tudd ku mel ni soxna maam Jaara Bousso. Mm-hmm. souvent bu ñu la ko waxee ah waaye ñooñu seen temps def nañ ko bokk ñu. alors que valeur valeur du dee. Mm. du soppeeku. xoola seetlul gis nga or ak jamaa foo ko tudd ñëpp xool parce que xalaat la valeur de la même manière gis nga ku mu nekk ci yow. non demal fu la neex ñun nañ la sopp dañ la bëgg dañ la topp dañ la ndiiraan parce que valeur boobu moo nekk ci yow. Mm-hmm. te valeur boobu noonu ci say jëf ak ci say pratique lay feeñ. te loolu gis nga lu gis nga lu ñu deful ci yow mënu ne ci yow te mënoo ko génnee. moo tax ma ne temps boobu noonu ñu war a mm-hmm. ñuy bàyyi pour ay futilité temps mm-hmm. te kaay ma jigéen ñi da ngeen am jot. surtout ci nouvelle technologie whatsapp yeeg yi tax na mm-hmm. yaratu leen. xale yu ndaw yi sax léegi dañu yor smartphone dañuy xale boo xam te ne amagul sax un an. écran lu dul loolu. alors que taxawaay bi dafa war doon leneen. parce que espace bi lay permettre pour que sa doom nga mën ko yar ci loolu espace boobu la ñuy réduire léegi bàyyi ko ci téléphone bi. am mm. na dañ ko waroon dépasser nekk ci fondamentaux yi fexe ba épouser valeurs yi nga xam te ne du changer jamono mënul ñëw ba soppi ko. te ku ci nekk tey am nga envie am doomu. Euh, joo xamante ni ëllëg ci àdduna dañ naan aa ah, diw wala nangam. mais loolu soo ko bëggee dafa am lu mu lay jaral. malheureusement léegi da ngay wax ñu ne la on est au siècle. am na yoo xam ne dépassé nañ ko. dépassé nañ ko alors que bal ku nekk bëgg nga lu baax. Mhm. réew mi daal dafa mel ni ñëpp bëgg lu baax. Mhm. waaye kenn bëggul wax la lii mooy lu baax. Mm. parce que souvent bu ñu lii mooy lu baax lee nekk lu baax yow boo giseen sa toogaay épousé wul li ñu wax. Mhm. mooy da ngay taxaw rek ne ah waaye ñii naa lu ko dégg. waaw mën a delluwaat ci fondamentaux yi parce que base boobu noonu dafa am solo. fii rek defuñu ko ci xale yi. Mm-hmm. non sérieusement man pour man ay bombe à retardement la ñuy la ñuy la ñuy jur. Mm-hmm. te boobaa du neex kenn te taxawaay daf ci ëpp te tey phénomène bi nga wax ni dafa bëri ci réew mi man mus nañ ma interpeller xale bu ndaw bu mel noonu. Mm-hmm. mariste may dem mu ñu fekk ma. naa ma waaw xaw ma dem sama xaw ma ki ma dëkkal daf maa génne xaw ma la nag genre yu mel noonu añu ma maa ngi nii xiif affaire yooyu ma koy questionné di ko questionné ba xam fu mu dëkk. nekkate mais tey su fekkoon man damaa jàpp rek li mu wax rek ma génne ma jox ko mm-hmm. ah mu dem nangam après mu tàmm ko mu dem. Mm-hmm. bul xam ñaata personne lay lay dajal yow yow yow yow kii la wax ne la jox ma xaw ma deux cent xaw ma cent mm-hmm. ñaata personne la romb xëy na ñu ko jox lu mel noonu. bien sûr. léegi bu gisee ni ah man ci journée bi kat laaj naa ay cent cinquante ma gis ne am naa ci deux mille trois mille mais kooku benn na jékki-jékki sax gis ne xëy na école mooy loolu xam nga xale rek. parce que amul derrière mun na am sax papa ak yaayam yëguñu ko. wala xëy na am na fu mu ko gisee nangam et koy defar ah, parce que man récemment daje naa ak mag joo xam ne magum jëmma ah. mu ne ma dafa demoon euh, hôpital dafa war a fay xaw ma ay rajoom euh, kii lañ ko taste juste euh, dañ ko ne dix mille la mais moom huit mille kii la am cinq mille. léegi 100000 moo ko manqué te dafa war a def retre orange money retrait wave mais wave dafa bañ lekk ko yokkal la bëgg t'imagines. gis ngeen ko nag xam a mën c'est bizarre na trop Pape Ousmane mais man xam naa ne dañuy toll ci période boo xamante ne boo xam

mooy loolu dimbaliwuñu seen i doom tey dimbaliwuñu ëllëg seen i intérêt bopp lañ nekk orientation yi wax tegul ci diine tegul ci aada tegul ci dara waxuma ñooñu mm-hmm. man ñi may wax mooy des parents sensés nga xam te lu mënte xew seen aqulay taalaala te bu ñuy orienté seen doom c'est dans leur intérêt di discuter ñoom di wax ak ñoom ba pare nag bàyyi leen ñoom le dernier moom bu ñuy choisir nañ leen ci associé mm-hmm. jigéen ñi delluwaat xam ni seen place dafa yaatu jigéen rek laa gis mm-hmm. ci àdduna yàlla di jëfee ci jëmmam lu wér lu kenn dul natable mooy doom ni muy soso ba ni muy muccalee loolu yàlla moom rek la ko cërale koo xamante ni yàlla dafay agir ci biiram ci jamono loolu ci mu ci jigéen rek la am amul sax ci góor ku mel noonu nag yàlla teral na la di des mooy xam boppam xam cëram xam ne du tubaab bi moo ko mën a jàngal cëram hmm? ñuy wooyee ay féministe ak ñuy dugg ni fii nangam ñu ci ëpp mbind yi mhm. ñu ngi koy niitoo ci ñi nga xamante ni mhm. ñooñu li ñu jàpp mooy ñu jigéen dafa war a am liberté am te li ci fës mhm. mooy moom moom boppam ci lépp na ko defee ni ko sentiré loolu bokk teg suñuy valeur valeur ci jigéen ci Afrique notamment au Sénégal ci ñun lu ñu xam mooy jigéen jooju yàlla sax bañ na ko ba defe ne kii la euh, mbubb la pour yéen góor ñi mbubb sutura valeur yar orienté jubbanti defar su yàqoo rek nekk ci penc mi di def lu ko neex tasaaroo la réew mu yàqu la. Mhm. moo tax fondamentalement il faut ñu delluwaat ci jigéen ñi wax leen seen place nan la. wax leen ko ak vérité bañu nekk foofu nag ñu naan noo góor ñi laa jigéen ñi nekkuma ci loolu man ñoom laa gën a bëgg ñoom laa gën a fonk. Mhm. moo tax ma leen di fàttali nag. Mhm. taxawaay bi ci ñoom. ah bu baaxee ci ñoom de lu bëri jag. mais buñ ko fi bàyyee nag jàppee seen bopp daal comme niñ koy objet yooyu ñi leen bëgg gëmloo noonu alors que war nañu mën a doon lu ëpp lool <laughs> non ñooñu moom wax dëgg neex yàlla war nañ mën a bàyyi xel ci cër bi nga xam te ni yàlla jox na leen ko ñu mel ni rahmatullah ak sama yaay yow moom tubaab fakkaale yow moom <laughs> waaw rahmatullah tamit xam naa ni macha allah borom daa <laughs> borom valeur la waaw Ogata moom bu teewee ci mhm. xamante ne am solo yu mu wax yaakaar naa ne il est le euh, ah. ko. war a wax moom moo tax nag rek euh, ba ko ah. daal wax waa gërëm leen sant leen bu baax. Mhm. waaw euh, ba pare tamit gërëm borom kër parce que borom kër yombut. Mhm. waaw borom kër man saa yi may joxe misaal rek damay joxe ñi nga xam dañu gis ñor ay pousse pousse parce que looloo leen gënal def leneen. Mm. tey boo demee fii port autonome de Dakar di fa fekk ñuy woy les dockers mm. demal nga xool xeetu saaku ñi ñu yenu am ñoo xam sax xëy na seen ndigg li mm. fa la jaare am problème digg ak yeneen feebar ngir lan mm-hmm. ngir juróom ak ñaar dërëm bi ñu am mu leew lan yóbbu ko ci njaboot te borom kër yooyu nga xamante ne ñu ngi rey seen bopp donte jamono metti na ngir fexe am lu leew ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal. sàkku tamit ci jigéen ñi ñu xam góor ñi baax ci ñoom te di leen jàppale di rey seen bopp ngir ñoom ngir seen sutura ñoo leen di dooleel di leen muñal waaw xam ne ñooñu ay góor yu responsable waxuma ñi nga xam te dañoo am lu ne gàññ mm-hmm. di def lu leen neex dëkkee sàcc alal réew mi mm-hmm. di hypothéquer ay avenir mm-hmm. parce que koo xam te ne dañu la dénk avenir ay réew nga desal ko ci sa bopp def lu la neex ëllëg ñooñu war a tumuranke ngir sa irresponsabilité mhm. ñooñu moom bàyyi nañ leen ak borom bi moo mën a wax ñoom waxuma ak ñoom mais góor góor ci réew mi muy góor muy jigéen ci di def lu ñu mën ngir kat bokk ci ñi nga xamante ne xëy na dañ ne gor yaa ngi mhm. ñooñu war nañ leen di mën a bàyyi xel euh, Ramatulaay comme euh, euh, Mariama comme ñu mhm. ngi jeex ci at bu ñu jëm ci at bu bees bi yàlla dimbali ñu. li nga xamante ne daal ay gàkk-gàkk la ci penc mi ñu summi mbubb yooyu. sol yeneen bu yoo xam te ne vraiment dina dina jàppan ci ñun ñëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax ni man moom saa yu ma soxlaa ci thématique yu mel nii daal waaw maa ci man daal <laughs> thématique yu ma dul waxtaanee mooy yooyu nga xam te daal boo ci génnee amul benn njëriñ ñun duñ ci jëlee njëriñ daal mhm. ku ma ciy séntu dooma ci fekk jëkkër dañ ko nee na jabar dañ koy tànn waaye maa ngi ne sama mbokk jigéen ñi aussi jëkkër dañ koy tànn parce que c'est l'avenir de tes enfants il dépend mhm. donc nañuy tànn bu baax a baax kan mooy doon suñuy borom kër ndax borom kër dañ ciy xaar responsabilité dañ ciy xaar koo xam ni dafa mën Euh, yar jigéen. Hmm. yiir ko sàmm ko parce que tey jii ñun lu ñu xam si suñuy parent avant mooy euh, daawuñoo ne seen jabar boo ko laajee dara mu ne la tu es jeune tu peux sortir travailler comme say morom. Ah. léeg léegi nag malheureusement looloo fi am moo tax it ñun jigéen ñi aussi dañoo nangoo ñafe. liggéeyi daan suñu doole ndax amal suñu bopp mun a jàppale sax suñu borom kër aussi mm. côté bu sens boobu la ñuy travailler on ne travaille pas pour euh, euh, euh satisfaire suñu bopp donc mm. tu vois sens boobu la ñu donc su ko defee ñu daal di tàggatoo rek bàyyi suñu bokk internet yi et puis euh, on vous donne rendez-vous demain incha allah ayca am na solo loolu nag mu nekkoon ki nga xamante ne moom mooy Ramatoulaye ma koy jaajëfal bu baax ci teewaay bu muy am fii nii di jaajëfal tey nag suñu invité ñu koy wax Pape Ousmane Cissé rafetlu nañ trop ànd muy ànd ak ñun hmm. waxee thème bi tey am na solo lool mais comme on dit ah la femme c'est la mère de l'humanité kon nag am na solo lool ñu xoolaat suñu toogaay waaye ñu delloo ñu cër bi nga xamante ne rek moom lañu moom ci biir société bi ma leen di jaajëfal di leen jox dig daje demee incha allah sur Equivox TV